Salut les amis de eSport TV, merci encore de la confiance en nous voler, merci de vous aider like, merci de vous aider abonnés, merci également de bàyyi seeni commentaire des bës cloche de notification bi di wax également mbokki sénégalais yi nekk 14 régions du Sénégal gox goxaat yi ruqaluxaat yi leen di jaajëfal sa su nek, ah hein. mbokki sénégalais également yi nek ci lalu hôpital yi tëdd wala ci kër yi feebar suñu borom yàlla na fëgg seen bopp ñu dëlu àdduna suñu borom yàlla na leen xare arjana fiir également ñi ngi ci kaso yi fàttewuñu leen benn yoon ah sénégalais également nek ci Afrique nek ci àdduna wërngal Cup. gox yëpp gars yi tous on avance ensemble dans la famille eSport TV chemin étudiants, les gays ah force de l'ordre médecin et tout gars suñu yaay jaay yi ak et tout gars di bienvenue dans la famille de e-sport TV l'actualité gars on va parler ci li nga xamné nak nag Boubacar Camara mi gars yi wax né maa ngi say ñu né Boubacar Camara dafa né il a choisi le Sénégal cette information est fausse nañ ci indi ay également Walid Ali mi nga xamné dañ ko wajja dakh ci Maroc dinañ ci wax le Paris Saint-Germain qui cartonne mais également la Casablanca le Real de Madrid également qui assure gannaaw bi nga xamné ne victoire ci Chelsea woné wat nañ seen bop tay l'équipe donc merengue de Ancelotti wax aussi d'abord ci va bi comme je rappelle gars demain rendez-vous pour le jeu concours dinañ joxe question bi portrait lay def ci ben joueur ñi nga xamné ñoo on de participer constamment Lors de bokk ci critères À répondre aux questions mais qui ne répondre gars yow gagné par rapport à nga on commence d'abord par le basketball li nga est ball bi compétition donc compétition africaine la même ligue des champions africaine Zamalek Taïmo, donc Taï 80 donc le dor à 63 équipe bi Cobra Sport Zamalek donc qui prend une option Tiens nga ramener, moi phase finale et du côté de la NBA Joel Embiid 41 hein, points 20 rebonds 82,4% par rapport à ses stats qui est moi Joel Embiid mi nga xam bu Philadelphie mi ngi wéy di bone boppam Joel Embiid actuellement beaucoup ci cadre yi nga xam té NBA ñu fay wone quand même seen bëgg-bëgg ak seen mën li nga xam moy basketball côté également derby Ligue 1 sénégalaise waxon na len ko tay Jamba dafa waroon dajeeg Dakar Sacré-Cœur Jamba de série mo door tay Dakar Sacré-Cœur Jamba de série bi nekk ci ben dynamique bu baax ñom nga xam malgré cela ils ont perdu 3 encore de leur cadre yo xam jugé nañ fa ci semaine yi ñu pas jour yi ñu génn mais également le hein, qui a battu Génération Foot Casasport Sport Mom boo mais défaite il s'est repris l'on a tax mu au haut du classement mais Casasport bi nga Génération football Madi Touré et aujourd'hui également du côté du Sénégal qui vient de également di Rassoul Ndiaye au niveau de Soso ah, plutôt chose la nekk moom actuellement donc euh, équipe bu xamné moy équipe bu Omar Daf tay ñom ñoo gagné mais Rasoul Ndiaye mom lañu tanan mu nekk jour du mois du côté de Chosso tay sax mom mo dugal but bi nga xamné mom moom tax équipe bi di donc Chosso daal gagner gagné donc nga xamné ne matcham bu am crucial la woon Chosso aujourd'hui gars yi qui est donc à trois victoires consécutives lool nga xamné ne nañ ko am félicitations également à l'équipe de Chosso ak sénégalais yi fa nek mais notamment à l'entraîneur hein, Chossolien ancien joueur de l'équipe nationale du Sénégal qui xam Omar Daf et aussi du côté de l'Espagne suñu doomu sénégalais yi nek fo nga xam ne ngi joué nag ca Barça B bokku na si Alpha jonku ak ki nga xam ne nag Moussa Ndiaye ñom nak tay ñom ñoo dóor li nga xamné nak mom moy donc Villarreal bu Nicolas Jackson donc deux buts lañ leen dóor à un ki nga xamné nak mom moy Nicolas Jackson mo duggal somptueux but ah but bu rafet duggal dugal gars prise de volée bu rafet Nicolas Jackson nga xam ngi ci troisième but information bi joxon naa ko en exclusivité c'est confirmé wax naa leen ko ki nga xamné ne mooy Ngalla dorénavant ce sera le sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc de Big Shocker Ngalla Sylla félicitations lui parce que mérité nako am salaire bu baax gënaaw limu liggéey il a été patriote jusqu'au bout et du côté aussi toujours de l'Espagne waa Valence gars dañu dañ dañuy jaay sen équipe finalement nee nañ jaayatuñu club bi donc actuellement aussi c'est un projet moy tabax ben terrain bo xamné à valeur de 300 millions d'euros le terrain bobu nak nenañ buñ ko ci jaayé buñ ko défaré dinañ ci am lu ëpp li nga xam mom lañ ci investir et Cristiano Ronaldo gars il a pété un câble dañ ba ñuy génn benn supporter wu Everton mako don togn mu sani téléphone mais mu finalement nak mom néna bal nako na balu mi ngi balu boy bi té dina ko invité bëgg ko invité match bi ñëw xalé bi ngeen gis nak tsunami bi amon nak sa dëkkam ay jamono mu soloon maillot bi nga xamné moy mayo maillot Portugal taxoon Cristiano Ronaldo jappalé ko lool ay atta ngi xalé bi légui nak signé na fa nga xamné moy Sporting de Lisbonne félicitations également à Cristiano Ronaldo qui est un grand monsieur De Gea tay gannaaw défaite bi nga xamné Manchester United am na devant Everton De Gea mo il a pété un câble moom dafa toj kaas yi nee na carrément gars ñun mérité wuñu sax gagné mérité wuñu sax dem C1 parce que li Madame Taï, maanaam tey wanewul niveau baax et du côté de la Série A l'Inter de Milan le Milan AC le Napoli coup à coude l'Inter de Milan 67 points donc Milan AC Inter 66 Napoli également 66 Inter mi également def na bon résultat mais aussi la Juventus de Turin mi nga aussi il n'a pas encore dit son dernier mot tey Vlaovic, moo dugalaat permettre leen aussi ñu bokk si ñuy gagné actuellement qui est le meilleur buteur de la Série A avec 22 buts le joueur Vlaovic mi nga waxon na len ci rek Ribéry et aussi hein, un autre joueur pour man joueur coréen sud coréen bi nga actuellement mo a ay parmi les meilleurs joueurs c'est un joueur sous comme il a marqué donc beaucoup de buts encore encore deux buts loolu permettre côté, tey donc par rapport à ces buts qu'il a marqué euh, nekk aujourd'hui le deuxième meilleur buteur boo dindee penalty yi nga xam ne Salah am na ko ndax Mohamed Salah cinq penalty de dugal Udminson donc moment moo 17 buts il xam ne amul benn penalty Là. également Sadio Mané qui est à la douzième position mais également encore il ne ba mu ñëwee Tottenham ba léegi mi ngi Kulisevic nga xam ne kii Antonio Conte moo ko jëlee Juventus de Turin 11 matchs le joué gum 3 buts def 6 passes décisives Kulisevic nga actuellement il est en train de s'imposer côté de Tottenham Tottenham aussi gars pour une fois, ko Harry Kane Harry Kane a gars malheureusement trois derniers matchs Tottenham dugal nañ buts au total Harry Kane dugalu aussi 12 buts Ben, c'est trois matchs consécutifs mais quand même il reste un attaquant un serial killer Bokone également également que passeur c'est un passeur très très décisif Tottenham bataille. par rapport au nombre de points en 2022 nous ñoo bok équipe bi ëpp li nga points également li ñu dugal ci ay buts mi ngi 34 buts la ñu ci 2022 Liverpool top ci 27 Chelsea euh, Leeds ak Wolverhampton donc li wane également Tottenham depuis que Antonio Conte est venu donc ñu avons commencé compter victoire di newlé ay défaite. mais aussi l'Ingham, hein, li nga moy Premier League bi Tottenham digne à la quatrième position avec également hein, euh, trois points supplémentaires Manchester City Liverpool ku nek ben point gré sa Chelsea troisième avec sa belle victoire avec également le clean sheet 44e clean sheet de Edu des murs de Gorée le Paris Saint-Germain aussi mais avant le Real de Madrid s'est amusé aujourd'hui Real de Madrid avec brésilien mi Nyom ñoom ñoo avec notamment un but somptueux de Casemiro Lucas Vázquez également mon double deuxième but le Real qui continue à montrer que ne ñoom patron au niveau de l'Espagne la Casa Blanca. mais aussi ce qu'il faut noter en matière de pourcentage Moi qui nga que le Modric également Kroos selon Opta le matching yi nga joué Real de Madrid il n'y a nekku ñoon titulaire 80 marché pour le Real de gagner. donc ce qui veut dire que sans Modric sans également Kroos le Real de Madrid est capable de remporter des matchs. Et du côté du SC Barcelone, le rival, Blaugrana, qui est Sergio Roberto Gaï, actuellement, agent de l'Ouarnan de Nyobogumudem, qui est Saviné de Bugnemutok, donc Nani Wartan, film de Ninak, agent et Akiganamoy, euh, dirigeant Barcelone, Warnan Wartan pour Rol Tikao, Sergi Roberto. Le Paris Saint-Germain, comme je l'ai dit, il s'est amusé, hein, avec Idrissa Ganagay, Taï de Nyonfo, Tikao Clermont, Dorco, 6 buts à 1. 3-3-3. Retenez, MNM, Neymar, Messi, Mbappé, Mbappé, Neymar, Messi gars Kounek 3 nekk trois Neymar trois buts Mbappé 3 buts et ki nga ramené la poule gars Lionel Messi a fait 3 passes décisives gars Lionel Messi bi nga gars même bu dugal lu il mi actuellement il est parmi les meilleurs passeurs du championnat de France ki nga ramené aussi Qui Kylian Mbappé actuellement il est à 20 buts c'est le meilleur buteur donc fi nga ramené, ne donc championnat de France mais également Lionel Messi gars actuellement qui a 400 passes décisives en carrière 400 passes décisives en carrière Quitte un petit moment, gars yi 300 passes décisives donc aujourd'hui en matière de passes décisives également Lionel Messi moi patron ou patron moi chef ou chef moi meilleur des meilleurs par rapport à ça qui nga ramené aussi moi mooy Kylian Mbappé tey Limou Dougal, euh, deux joueurs nous mës Dougal, Gaï avant nous en 24 ans 125 buts en carrière moi qui di Raoul mi gis Raoul González Blanco à qui nga xam ne Kylian Mbappé donc ñaari joueurs yooyu atteint ce barre de 125 buts te eggaguñu 24 bougies Kylian Mbappé aujourd'hui Gaï, il fait partie des meilleurs joueurs incontestablement incontestés actuellement du monde mais il n'est pas le seul mais en tout cas au niveau de la France ming ngi wane également Taï, ah, Taï? Mingi commencé battre également record qui dit donc euh, donc nous ñu tuddati euh, Thierry Henry mon moo ko amoon mooy nga tegalee gars yi ay trois matchs yu dugal ay triplé et tout donc aujourd'hui qui a mis ngi la sur la bonne dynamique avec aussi la légende Thierry Henry a Mbappé qui est en train de suivre les pas de Thierry Henry et du côté du Maroc wax naa leen ko Walid Halilodzic selon les informations la fédération marocaine qui a dàq ñi ngi wax turu ki nga xam ne mooy euh, Laurent Blanc ak yeneen tour parce que les ko waral mooy que ne Maroc dañuy dem coupe du monde c'est le joueur bernard ñoom dégguwuñu ak ki nga xam ne mooy Walid Halilodzic tax na jël décision ne dañuy séparer en moom mais c'est pas encore officiel information la xamné xam également média marocain ñom ñoko joxé ko joxe média public marocain moo ko joxe actuellement ci lolou lañuy liggéey ñi ngi xol nak ñi ngi tour Laurent Blanc ñi ngi tour également yeneen tour. mais à al dal bo mo moytuwul bu fekkee ne c'est confirmé coupe du monde bi du toogoote ci maaw li nga xamné moy équipe bi di équipe bu Maroc mais également information rumeur bi gaay wax nan ki xamné xam ne Camara dafa wax né mom day ñëw équipe nationale du Sénégal il a dit oui gaay cette information pour l'instant elle est fausse ki nga xam ne Camara nee il n'a pas pris de décision jëlagul décision mi ci phase de réflexion xalaat na nak ñëw équipe nationale du Sénégal lolou lañuy ñaan ñun ñëpp mais rien n'est dit, rien n'est fait. Donc Boubacar Kamara, pour l'instant, il précise, il n'a pas pris de décision, gars. Donc en tout cas, c'est la bonne information que je voulais vous donner. Mais pour l'instant, on sait que l'équipe nationale du Sénégal, mais il n'a pas pris de décision. Il va jouer pour l'équipe nationale du Sénégal, pour l'instant, en tout cas officiellement. Mais gars, demain, retenez, ce sera le dimanche, le Sénégal va avoir un fils Sadio Mane, qui va le représenter qui duel bi Manchester City et Liverpool Qu'on gagnera rek premier du classement gars yi woy like woy di abonné toujours un plaisir de vous servir sur eSport TV Ja, game. Jeff.